Ah. jaa ngeen jëf yéen suñu mbokk internet yi ci topp gi nga xamante ne topp ngeen ñu ko ci suba ba léegi comme ni ñu ko àndee woon ak yéen rek ci ne dem nañ ci tey nag ñoo fii ci waañu soxna May Mbàkke ñu fas yéene fee am ak waxtaan bu am solo ak jëwriñ bi nga xamante ne mooy Serigne Mor Mar ñu fas yéene waxtaan waxtaan bu am solo gis ngeen ko nii ñu ngi ci liggéey bi fi def liggéey bu am solo kon rek dañuy daal di jàll ci biir ànd ak suñu caméraman rek ñu daal ñuy digtal li nga xamante ne waxtaan nañ ko fi kon topp leen ñu Serigne Mor Mar Serigne moo ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi ziar bu baax. Ah, ndax mën nga ñoo wax tolluwaayu waañ bi fi mu toll nii fi mu ne nii ci liggéey bi. waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi di ziar bu baax yéen waa Wilaya TV di jut ni bi ziar bi Serigne Mountakha Bachir xalifa général des mourides ñu ñaan yàlla sa borom yàgg fi loolu te amal ak wér. di ne mooy sëriñ Amady Mourou Mbène Fall xalifa Baye Fall fi lool ba yéen bi oyof ci moom comme ni nga ko waxee rek tolluwaayu waañ moom ñu ngi fi ñëw le 14 safar xëy dem nekk sunu sunu sunu sunu liggéey euh, li nga xam ne moom lañ ñu jox ne fu ñu toog ko daal euh, ci loolu lañ toll fu mu toll nii euh, daanaka liggéey bi moom xaw naa xaw naa nu xaw naa metti lool. mais ñu ngi ci dina am suñu kéemtu lay kàttan pour mu gaaw pare mën koo yóbbu ca ganu Serigne Touba yi daal. ndax xeetu plat yi nga xamante ne yéen ngi ko fi def pour bernde ko gan Serigne Touba waaw fi mu toll nii moom ceebu yàpp lañ lañ lañ fiy togg. lañ togg démb dem ci le 15 safar ceebu yàpp lañ fi toog toog nañ fi tamit li nga xam ne eh, ay ay ay plaatu ginaar la plaatu xar la doon. lañ mm-hmm. koy mis wi rek daal di koy teg ci plate yi. Mm-hmm. defar ko ba mu rafet. léegi su ko defee loolu ñu jël yóbbu ko ñi ngi xam ne mooy ca Kër Sëñ Tuubaa ga reer bi tamit noonu lañ ko defaat tamit eh, mis wi lañ ko defaat. Eh, tey nag ban xëyee tamit ceebu ginaar la ñu toggloo ceebu ginaar la ñu toggloo ak ay palaatu ginaar tamit. waaw loolu daal lañ tolloogum ci liggéey fi mu toll nii kon kon daal plat yi mën nañoo wax ne kon ñaari ñaari plat rek moom lay doon moom ngeen di togg ñaari ñaari xeeti plat yu wute. waaw day doon ñaari xeeti plat mën naa ñetti xeeti plat tamit ndax à chaque fois suñu xëyee eh, di gën li ñuy gën a dem yëpp day gën a yokk parce que eh, ci ci ci ay fiches la liggéey kenn ku ne xam na ne liggéeyu liggéeyu liggéeyu liggéeyu màggal gi il faut ñu ko teg ci euh, euh, ordre yoo xam ne day leer nañ parce que doon liggéey boo boobu dafa yomb. doon lu ñu xëy xëy rek daal di koy def il faut que bind ko ci ay fiche ba mën di ko di ko coordonné mu baax loolu ndax tamit euh, bëgguñu tamit mu ëpp mbaa mu yées loolu daal ci saa yu ñu xëyee daal euh, mën toog ñetti pala dañuy toog ñaari pala daal à chaque noonu lay demee waa jërëjëf ba naka nga jàngatee toll ki jokkute bi nga xamante ne màggal gi mu ngi koy am gis nañ ne euh, màggal gi nga xamante ne moo weesu plat yi ngeen di togg day yokk quantité bi day yokk naka nga jàngatee loolu waaw yokkute googu nag moom ni ñu ciy jàngate mooy e, mbirum Serigne Touba moo demee noonu ndax kat e, comme ni ñu koy faral di waxee Serigne Touba daa doon daa kenn. tamit kenn googu mu kenn googu mu doon ñu ko di ko kennal tamit e, ay mbiram moom day yokk mais du wàññeeku comme ni ñu koy faral di wax à chaque fois. du du wàññeeku mukk abadan day xel di yokku heure bu ñu xëyee day yokk kon loolu tolluwaayu Serigne Touba la Serigne Touba moo toll noonu. Euh, tawféexu sëriñ bi la nag ndax euh, kenn ku ne xam na ne de murid yi à chaque fois suñu xëyee ma euh, wala à chaque fois su dooleekoo dañuy bëgg muy dooleeko xéewal gi delloo ko lu toll noonu moo tax liggéeyu sëriñ Tuubaa mooy demee noonu à chaque fois ni koy faral di waxee rek tànk kanam la am am tànk gannaaw kon loolu noonu la am murid di doxee muridisme moom noonu lay doxee à chaque fois kon rek dañ daal di lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo ak suñu ñu ngi lay seetaan waa xanaa dinañ santaat bu baax rek di rafetlu liggéey waa Wilaya TV ndax gis na ne ban doore liggéey ba tey information yu bëree bëri ñoo koy am ci daahira wilaya bi gis nañ liggéey bu am solo bi ñuy def. di santaat bu baax tamit ki nga xam ne moom lañ nekk ci waañu mi suñu jëwriñ soxna Maymuna Mbacke Moussa Mbacke Mohamed ak soxna Seyna bu Mbacke di sant bu baax di sant tamit mbooloo mi nga xam ne moom la ñu yàlla suñu borom booleel ñu ne ànd ak ñoom liggéey si liggéey Sëriñ Tuubaa gi ñoo di sant ñëpp di lu liggéey bu baax daal jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf kon mbokk yi ñoo ko gisandoo ki ñu taxawaloon mooy ki nga xamante ne mooy Serigne Mor Mar nekk jëwriñ ki nga xamante ne moo jiite waañu soxna May Mbacke kon ñu ko ci sant baa baax di leen gërëm di leen ñaan ngeen topp ñu ci suñu ci ay yeneen i waañ jaa ngeen jëf